Maymuna allez-y micro Maymuna dafa euh, bismillahi rahmaani rahim euh, maa ngi leen di gërëm euh, di gërëm ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko mi ñu convié ci échange bi mu doon façon échange yoo xam ne dañu koy rafetlu je pense que mën nañu démarrer par le sens de son engagement parce que tamit euh, livre bi compilation euh, promesse la profession de foi gis-gis bu mu am ci Sénégal gis-gis bu mu am ci yëf yi nu mu doon doxee ak euh, mébét bu mu am ci changé ko moom mu koy wax ci livre am nee na citoyen bu nekk am na droit laaj un homme politique boo xam ne dafa ne dafa bëgg a jël réew mi lan mooy vision vision boobu nag mu compliqué ko euh, ci livre deux cent et quelques bi mais damay démarrer rek par deux observations Ousmane Sonko euh, dama gis ci bi nga xam ne diffusé nañu ko euh, nga démarrer par des images de France 24 Euh, ma bëgg a leeral rek ne aw ma benn problème par rapport ak euh, journalisme c'est universel mais dama xalaatoon ne euh, ci koo xam ne danga nekk di promouvoir kii yu bees jikko yu bees koo xam ne danga ñuy woo ci ñu gëm ci suñu bopp xam ne dangay bon ñu koy waxee sax dangay fouetter li nga xam ne moom mooy suñu orgueil affaire bi jaaxal ma xaw ma choqué mu rappelé ma nag traumatisme yi nga xam ne dañ koy dund ak suñuy homme politique euh, ci Abdou Diouf Ablaye Wade ba ci euh, ki nga xam ne moom mooy Macky Sall bu ñu waree wax waxu réew mi waa bitim réew la ñuy accordé yi nga xam ne moom mooy monopole bi ma xalaatoon ne mënoon nga def spot avec image neutre mais pas nga démarrer image de France 24 parce que au Sénégal euh, télé yi gars yi ñuy def liggéey bu rafet euh, tey yow mënoon nga bokk euh, ci ñuy fulaal ñuy jëmal euh, liggéey boobule waaye tamit loolu indi beneen interrogation boo xam ne bëgg naa ñu ñëw si mënuma démarrer waxtaan bi tamit te waxuma ko Ousmane Sonko lan mooy sa problème avec la presse sénégalaise da nga am problème avec la presse sénégalaise. amul tribune booy toog amul fooy taxaw amul livre booy bind te waxuloo euh, égratigné woo ñi nga xam ne ñoom ñooy presse sénégalaise ma bëgg la fàttali rek ne la presse est le reflet de la société li ngay wax ci presse sénégalaise yëpp yaa ngi koy euh, dénoncé ci li nga xam ne euh, moom mooy système bi li ñuy gis ci presse bi moom la ñuy gis ci inspecteur des impôts yi moom la gis ci yeneen pàccu euh, fonctionnaire ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yor réew mi ma bëggoon xam dan mooy sa problème mu mel ni ñun daf dañ la blessé wala da nga am ay traumatisme yoo xam ne da nga ko jëlee sa diggante ak presse nationale te ma yaakaaroon tamit booy promouvoir discours bi bees dama war a ma xalaatoon ne booy promouvoir euh, dafin bu bees ak discours bu bees euh, waruwoo ñëw en fondamentaux bu nekk taxawal donc loolu benn remarque la beneen remarque bi ci seen livre bi ci forme bi dama doon xool euh, entrepreneur sax di xool ban chapitre nga jagleel jigéen ñi xool naa xool xool xool bi ma gisee nga def nga wax ci inégalité man ah xëy na fii dina wax bu baax ci jigéen ñi gisuma ko ma gis nga wax ci éducation ma ne ah xëy na fii la gisuma ko nan nga mën ñëwee en 2018 jigéen représenté lu mu représenté ci réew mi waaye tamit jigéen souffrir sonn ndax système boo xam ne yàgg na ñu teg ko fi mu défavoriser jigéen ñi nga bëgg jël réew mi te yow amuloo benn euh, amuloo politique bu particulière boo xam ne danga koy teg parce que nag ce qui concerne en ce qui concerne les femmes ñun mënuñu tolloo traitement ak góor ñi xam nga ndax lan euh, système bi de 1960 à nos jours et bien système bi daf ñu dévaloriser système bi euh, le système ne nous est pas favorable boo ñëwee nga bëgg a defar réew da ngay démarrer par une bonne et grande politique économique et sociale pour la femme parce que jigéen mooy mooy yar citoyen bi nga xam ne moom moo war defar réew moom moo war changer réew nan nga mën a bëgg a jëlee réew te waxuloo ci li nga xam ne. ay place jigéen ñi ci wàllu protection sociale dañ cee sonn accès o terres dañ cee dañ cee sonn accès au financement dañ cee sonn wàllu éducation yaa a tellement de disparité entre les hommes et les femmes donc loolu dafa waroon nekk un chapitre en bonne euh, boo xam ne day nekk en bonne place ci sa offre euh, de de de de de programme euh, man tamit absence boobu daal xaw ma xaw ma naqari ma bëggoon xam Ousmane Sonko lan la jigéen di représenté ci yow. lan mooy place jigéen ci yow ensuite pour terminer. ci mu am débat boo xam ne dafa laaj ñu tranché ko balaa ñuy jël suñu réew di ko jox nit. mooy yow Ousmane Sonko boo jëloon réew mi lan mooy doon sa position ci wàllu débat bi jëm ci réforme code de la famille mu am ñaari tendance mu am boo xam ne dañuy sàkku euh, religieux yi ñoo ko yor dañuy sàkku ñu référé wu ci suñu islam ci suñu diine euh, pour définir yu war a nekk ci code boobu waaye tamit mu am une tendance progressiste jigéen ñi di sàkku code bi ñu ne code bu 1979 bi sax dafa dépassé dañ ko war a adapté aux réalités du moderne jigéen ñi di sàkk ñu déterminer lan mooy lan moo war a doon lan moo war a incarner puissance paternelle donc jigéen ñooñu di sàkk code bi ñu xoolaat euh, ba nga xam ne dina mën a gën a avantage ci jigéen ñi defe naa na tontu ci question boobu jërëjëf. am na solo léegi pour mu impératif Ousmane Sonko pour mu impératif mën nga tontu directement léegi pour yeneen panélistes yi kuy poser question tamit comme am nañu waxtu suñu biir rek. laaj yi mën na gën a gàtt euh, mu ëpp mu ëpp ñam nga def Ousmane Sonko mu nga tontu. waaw merci Maïmouna je crois que ci question yi nga posé def naa ñaar ñoo ci am rapport ak livre bi yeneen ñi amul rapport ak livre bi peut yàgg denc la doon xaar fan laay jàkkaarloog Ousmane Sonko <laughs> mais mais naa tontu ci yëpp. lu ci njëkk ci gàttal mooy presse mais man amoo benn problème ak presse c'est c'est contradictoire sax d'un côté ñu ne c'est le de la presse ñenn ñi ne la presse qui l'a fabriqué de l'autre on me dit tu es contre la presse finalement c'est contradictoire je ne suis contre man aw ma benn problème ak kenn waaye lépp lu jar a wax ci réew mi te mu jëm fii luy defar dinaa ci wax te presse mënul doon benn exception boo xam ne parce que jàpp nañu ñoom ñooy mujjee micro bi ñoom ñooy xëy chaque jour yor seen micro wala bind kenn warul tudd presse musuma ne presse yëpp yi lañu mel ni ma gëmee ni biir impôt domaine wala trésor wala douane am nañu jub am nañu dëng noonu laa gëmee ni biir presse am nañu jub am nañu dëng musulman généralisé te bëri na ay journalistes yoo xam ne dama leen naw dama leen naw ñenn ñi xam naa leen ñenn ñi xamuma leen sax kon boo nee nag livre bu ma bind wax ci presse sama premier livre wax naa ci ci presse eh, benn paragraphe wax naa ci ci impôt domaine benn boo ko liiree la ma wax ci impôt domaine ci livre boobu ak li ma fa génne ci ay mboosoo waxuma ko ci presse yow journaliste nga bis bu nekk journaliste xëy ne impôt et domaine nii la ñu mel c'est les plus corrompus de problème moi quand j'étais aux su ñu nee impôt et domaine c'est des corrompus me sentais pas concerné parce que je ne suis pas corrompu c'est ça qui est important te teewul te teewul journaliste moo gis mu bind ne les impôts et domaines c'est tous des corrompus le lendemain huit mu ñëw sama bureau lay àqam dama ko koy jox mu dem yoonam kon su Ousmane Sonko amee benn critique ci presse comme mënuñu critiquer l'institution présidentielle l'Assemblée nationale euh, l'administration les religieux sax dañ leen di mais il ne faut jamais dire quelque chose par rapport à la presse ça c'est de la dictature Maïmouna il faut pas qu'on en arrive mais on a beaucoup de respect pour vous ndax si je suis là Si j'en suis là, c'est parce qu'il y une presse dans ce pays pour relier ce que nous faisons. Et on a programme pour vous. Je ne vous corromps pas, mais retenez le Alors, bi clip bi man tourné wu ma clip bi man maa ngi ci yeneen y a un service qui gère ces questions là peut-être que ñoom mën nañu expliquer pourquoi. mais le plus important à mon avis su dee da nga bëgg a apprécier mon approche patriotique defe naa soo liree téere bi ci début ba fin di nga am réponse à toutes ces questions là à la limite benn image ci clip c'est anecdotique ça peut être de casting comme ils peuvent le justifier mais ça n'impacte absolument pas ci suñu patriotisme absolument pas alors les femmes même la liir nga bu baax sama livre bi parce que si ko soo ko liiree bu baax li nga xam ni wax naa ci jigéen ñi et je n'ai pas parlé des hommes. j'ai wax ci femmes yi leen di ñaan maa leen di ñaan lenn parce que bu moom ngeen di Pastef day day sot maa leen di ñaan rek pas d'acclamation la def li ma proposé woon. mooy bu benn intervenant pare ba ma répondre ci diggante ñaar yooyu si vous voulez vous pouvez faire des acclamations mais comme moom andiwul mbooloo su ngeen tàccoo rek day mel ni koy saf te bu mu saf bien que nag tàccu ngeen ko saako bu bëree bëri bëri surtout euh, xam nga y a mille de parler de quelque xam nga yàlla jël na benn chapitre ci alxuraan tuddee ko an-nisaa lu rëy rëy mais mun nga wax ci nit wala ci benn domaine sans pour autant nga consacrer ko chapitre mais lañ ciy wax sax mooy ëpp solo parce que soo lire livre bu baax j'ai parlé des femmes quand j'ai parlé de la protection sociale jël leen ñoom dugal leen ci les couches vulnérables ñoom ak mag ñi. ñoom ak euh, euh, des personnes vivant avec un handicap ma dugal leen def leen ay développement spécifique yoo xam ne lan la ñu war a def pour gën leen protéger ñoom wax naa ci femmes yi ba may wax ci réforme agraire bi nu ñuy def ba jigéen ñi nga xam ne ñoo ne ci àll bi te ñooy bay ñu mun a am dans le la réforme agraire bi ñu proposé nga xam ne si pour que baykat yi moom seen suuf am kayit mais naka la ñuy def ba ñu bañ a bett jigéen ñi parce que plus ngay dugg ci monde rural bi plus mentalité yi mel noonu mooy jigéen moom dafa war a bootu rek wax naa ci ak yeneen ak yenn pàcc yoo xam ne j'ai parlé des femmes boo ma ne woon nag lan ca wax doyul mais waxoo ci moom mënoo cee d'accord parce que wax naa ci j'ai fait des propositions te bu soobee yàlla bu ñu yàlla yeggalee s'il y a des gens qui vont gis naa jigéen ñi ñoo ciy njëkk ak jeunes yi euh, wax nga affaire code de la famille puissance paternelle c'est un débat binduma ci fii ci livre bi ci cadre programme bi ñuy génnee peut dinañ ci joxe des propositions mais comme c'est des débats qui sont ouverts te gis nga légiférer Sénégal on légifère très mal en fait soo jëloon am na science bu ñu tuddee légistique légistique c'est l'art d'écrire les lois soo ko appliqué aux lois sénégalaises da ngay gis ni catastrophe la parce que dañuy jóg rek parce que am na benn tendance bu bëgg li am lobbying def la pression ñu ne dañu légiférer or pour légiférer sur des questions aussi sensibles aussi essentielles dafa laaj un processus inclusif boo xam ne da ngay tous les acteurs déglu leen bu baax xool par rapport à un certain nombre d'enjeux nga doog a mën a jël une position moo tax su leen da nga bëgg tey ma tranché débat bi ko def li ma bëgg a wax ci gàttal foofu mooy nee nga les femmes bëgg nañu mais même foofu je relativise quelles sont les femmes bëgg parce que souvent il y a même quelquefois benn écart benn rupture bu extraordinaire entre li des mouvements ou des groupes pour ne pas dire yenn élites yi li ñuy wax ak li ñuy xalaat ak li nga xam ne moom la écrasante majorité bi wax wala muy xalaat est-ce que tey mën nañu génneel des statistiques des sondages ou des yoo xam ne dinañ ne les femmes faisant 53% de la population 40% de ces femmes-là la ñu bëgg loolu dafa bokk ci art légistique bi ma doon wax noonu mooy la dimension sociologique nga xam lii ñu posé comme problème fan la toll ci askan wi ñenn ñoo ko ŋànk ak fan la ñu bëgg a moom tant que yooyu yëpp nag egguñu si lii ma wax nii wala lii nga bëgg ma tranché débat bi mënaguma ko parce que en dinaa dem à la rencontre de tous les segments dinaa déglu les religieux dinaa déglu les femmes dinaa déglu les jeunes keneen ak keneen ñu doog a xool fan ban orientation la ñu war a jël je crois que ci gàttal par rapport ak yooyu nga posé nee peut-être ñaari moom ci biir livre bi la mais yeneen ñaari xam naa dànk salaana la woon euh, les amis de la presse vraiment merci mais mais mais on répondra à tout parce que loolu mooy l'objectif de cet exercice. ok am na solo kon ñu ngi lay bu baax Maïmouna Ndour Faye toujours égale à elle